daleen ak jaam dañu koy door rek Nabou Leye mi nga xamante ne bii teg nañu ko loxo Nabou Leye de koo ko xam di ab jege ñaale ak Aziz Dabala foo xamante ne bii ñoom ñaar seenub diggante daanaka altine ak talaata la woon parce que doxul ci seen diggante mu nekkoon ki ko gën a jege doon ki nga xamante ne bii itam foo ko masaane gis gis Aziz Dabala Nabou Leye boobaak tey bi coow lu nekkul influenceurs ku ci nekk rek génn di wax naan Nabou Leye taxe na cam laalewu cam laalewu ca le wéttéwóor mooy Nabou Leye yóbbu nañ ko diig te itam ci ab garde à vue waxtu wi la tembe ci la nekk ginnaaw bi nga xamante ni bi élément yi division des investigations criminelles woo nañ Nabou Leye di ko déglu la mu leen tontu daal fi mu nekk nii dafa mel ni dafa tey xel ba tax na ñu daal di ko teg ci ab garde à vue moom Nabou Leye waxtu wi la tembe journal bi fépp foo ubbi rek daanaka réseaux yi yaa ngi gis photo Nabou mu ne fàng ci réseaux sociaux yi ku ci nekk naan Nabou Leye bu laalee ci mbir mi loxo dina dargeme li wétéwoor mooy amaguñ ci ay xibaar yu wér téwoor waaye nag lañu xam rek mooy Nabou Leye waxtu bi la tembe ma nga ca dikk ba noppi ñu teg ko ci ab garde wax ci leneen keneen mu di parent yi Wally di Boubacar Gano mi nga xamante ne bi moom lañ rayandoog Aziz Dabala ay waajuram génn nañ wax daanaka wax ji nga xamante ne bi wax nañ ko nag ci réseaux sociaux yi ñu ci bari ño ña ngi koy ñaawlu di wax lañu la ko ci gën a rayaale Wally lii metti te même bu fekkee ne deeyug metti na ko sax waaye Wally mën ci rayaale loolu yi naqari na ko ba fa kanamu yàlla waaye parent yi nga xamante ne bi moo di parents yi waalide yi ñoom ba ñu génnee di wax daanaka rek dañoo joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xamante ne bi ñoo suul Aziz bàyyi waali loolu lépp di li ñu wax waaye nag ba noppi waxaat leneen mooy ki nga xamante ne bi mooy Aziz xamuñu ko ko lu dul ca Adama ak Awa ba noppi itam bokkuñoo moom leen waali fréquentation bi nga xamante ne bi nga ko doon fréquenté Aziz Dabala loolu yëguñu ko tey te itam yëguñu ko ëllëg daanaka daal nañu waxee mooy yëf yi dëgg am nañ ci lu leen metti tey itam bu fekkee ne naqarlu nañu génn àdduna gi nga xamante ne bi waali génn na ko àdduna àdduna leneen lu ñu naqarlu bokk na ci fréquentation ba mu doon fréquenté Aziz Dabala ba lii lépp fekk ko ci nagaale yi nag ku nekk di ca yëy di ca yàbbi naan nañu communiquer dëgg-dëgg baaxul waaye nag ñenn ñi mën nañ leen a comprendre ndax nag ku ñàkk sa doom sab xol du neex des ci enquête boobu ba léegi daanaka démb ci nga xamante ne bii rek moom la ñu jàppoon ca Touba Mbacké ñu di ko woowee Modou Lo Modou Lo moom nga xamante ne bii turam dëgg moo di Mamadou Lamine Diaw alias Modou Lo moomu de nga xamante ne bii jàpp na ko ca Touba ak complice am ba nga xamante ne bii rek daanaka moom la tegaloon yëf yi gendarmerie ba nekk ci jànnatul maxwa daal di ko teg loxo fas yéene ko indi ndakaar waaye boobu ak tey nag am yeneen xibaar yoo xamante ne bii rek mu ngi génn ku nekk di wax naan ki nga xamante ne bii rek moo di Mamadou Lamine Diaw alias Modou Lo xaj na boo sàgganul sax mën nañu ko bàyyi mu ñibbi ndax laalewul ca mbir ma ña laale ca mbir ma dëgg-dëgg ñu ñu koy wax rek journal bi laan ñu ay xaritu Aziz Dabala la dëgg-dëgg ab gang la xamante ne bi mbir mi yëfi kompaloo la te itam bu enquête ba leeree dëgg ba waa dikk jébbal ñu ko loxo dina dar gémmeñ ndax nag cay tudd ñu baree bare ba ci tudd ay xaritu Aziz Dabala yoo xamante ni bi gisoon nañ leen ca dëj ba ñenn ñi sax jot nañoo jël micro ba noppi itam naqarlu mbir mi ba noppi itam di ci tudd ñaari jigéen yoo xamante ni bii rek ca mbir mi di lu metti loo xamante ni bi Sénégal yi fi mu nekk ku nekk rek yaa ngi la ngay yàkkamtee dégg mooy ana kan moo ñu rayal di loo xamante ni bi Sénégal yëpp moom la ñuy xaar waxtu wi la temb mais daanaka nag liggéey bi fi mu nekk nii fa mu toll division des investigations criminelles jëlal ko seen bopp ami waaye tam police scientifique ak gendarmerie corps yi nga xamante ni bi ñoo nekk rek ci senegal ku ci nekk yaa ngi ciy def liggéey bu am solo daanaka yëf yi boo sàgganul du yàgg dara dinañ ñu wax ki nga xamante ni bi moo rey Aziz Dabala ana lan moo tax mu rey ko wax ci màggalu Tuuba ak Sénégalais yi nañu ko dundee ren jëlee daanaka ku ci nekk rek dem nga ziyaare ji ñu gis fa nag star yi nga xamante ni bi ñoo nekk ci télévision bi ci mel ni yaa awa rasul moom itam mu def sañse rek def classe ak jongam ba noppi itam wane élégance am ci màggalu Tuuba Zeyna Ndour moom itam ak borom këram tam gis nañu leen rek ca màggalu Touba Zeyna Ndour daal di sañse fu dara nekkul ba noppi itam def ay photo daal ko posté àndandoo ak borom këram Ndaxte Lo moom itam seen ko ca màggalu Touba Ndaxte Lo koy faral defee rek chaque année bu màggal jotee mu daal di sañse ay sañseem ba noppi itam jël dugal ci ay paatam pas di partager ñi nga bi ñoom ñooy ay fansam ca bële boor moom ki nga xamante bi moo nekkoon borom këram di Mario Mbaye Mbaye mi ngi doon cant cant gu rëy goo xamante ni bi daanaka ñu bëri teew nañ fa ku ci na ci kawam ba nelaw Boucher Ketchup day bi nga xamante ni bi posé nañu ko ko ca màggalu Touba ko laaj rek ci deewuk Aziz Dabala mu wax ni deewuk Aziz Dabala sama yoon nekku ci fu mu nekk ni màggalu Touba lañ tal nañ ci wax ci màggalu Touba kàddu yooyu nga xamante ni bi yëkkati ko moom Boucher Ketchup Adamo daf ko naqarlu ba defal ko vidéo daal ko dugal ci ay ay page am daan ne ko boucher ka ca bu fekkoon ne sa mbokk moo dee kon nag ni nga communiquer dooni communiquer dëgg-dëgg nag am murit dafay am yërmande aadamoo la gis muy sermon rek ki nga xamante ne bi moo di boucher ka gu masaana jot mu def ci bës ay oram yu bari daan takk ak yi nga xamante ne bi doon na ko def mu mel ni ngoy faal ren di daal ba ñu ko gisee bokkut ak ngoy faal ma ñu daan gis ñu bari nag di wax ci changement bi nga xamante ne bi ngoy Fall ana lan moo ko dal ndax Ngoy Fall dafa tawatam Ngoy Fall mooy ba ko daan gis ci sañse yi ñu ko daan gis waaye itam ci taar ba ñu ko daan gis dëgg-dëgg ren gisuñu na nag waaye ren ñi mu génn daal yéem na dëgg-dëgg ñi nga xamante ne bi ñooy ay fansam moom kii di Ngoy Fall di soxnaas Askia Touré li wétéwoor mooy sénégalais ku ci nekk rek yaa ngi posé ay question naan ana lan mooy problème bi lan moo xew ci Ngoy Fall ba Ngoy Fall brilleetul wax ci Mia Guissé mi demoon màggali moom itam Mia Guissé day fekk nañu ko ci kër doomi Serigne Fallou joo xamante ni mi ngay wax ne xaritam la waaye itam papaam la te itam waajuram la kilifaam la amul lenn loo xamante ne bi rek dina ko def ci àdduna te itam tàgguwu ko mi yaa gisee waral bi màggalu Touba jotee mu daal di daxantu ba Touba dem ziyaare ji waaye dem ziyaare ji papaam waxtaan ak moom fa ko fekk nag di ko interview laaj ko ci mbirum Sidi Diop mu wax ne naqarlu na ko ba fu kanamu yàlla ndax nag Sidi Diop frère am la te itam nit ku baax la nit la koo xamante ne bi yéenewu ko benn yoon li ko daal wax na itam ci digganteem ak Wally Ballago Seck clip bi nga xamante ne bi def nañ ko ànd koog loolu yëpp mu wax ci ba noppi itam profito daal di waxaale ci concert ba muy wàcc Paris le 7 septembre oustaz Modou Fall wax na ci Pape Cheikh Diallo ca Magaluk Touba oustaz Modou Fall da yëkkati na ay kàddu daal di gërëm rek ki nga xamante ne bii mooy Pape Cheikh Diallo seedeel ko ay seede yu rafet ba noppi itam wax ci moom ak mbaax nee na kii di Pape Cheikh Diallo dëgg-dëgg mbaax rek laa ko xamee nit ku baax la nit la ko xamante ne bi ku yaatub xol boroom xol bu rafet la waaye itam ab liggéeykat la te itam ku mën a muñ la oustaz Modou Fall ba muy wax ci digganteem ak Pape Cheikh Diallo daanaka ay ronqañam dal ci ab dënnam ndax nit la koo xamante ne bi nee na heure bu may seede ci moom rek la may seede ci moom dootuma ko attan oustaz Modou Fall bu weesoo loolu na ay pic rek daal di ko saar yu bari ba noppi itam saraxeel ko bale ngir mu mën a tàkk soxna ndax it nag célibataire bu mag la tey dama bëgg mu génn ci mbirum célibataire Wally Ballago Seck demoon na ca màggalu Touba moom itam dem ziyaare ji ki nga bii rek moo di sëriñam di sëriñ Fallou Mbacke di ab sëriñam waaye itam di ab xaritam Wally Ballago Seck ñu gis ko mu def ay teranga yu bare bare bu weesoo nag yu bari yi nga xamante ne bi jënd na ko laata màggal gi daal di ko séddale Touba dem ne itam ci bësu màggal ga teelu màggal ba mu jeex mu daal di ñibbisi moom Wally Ballago Seck wax ci mbir mu day waar moo xamante ne bii rek xew na benn waaye day moo doon yóbbu as ndaw Touba dugal ko ci ab ndaw sa ma ngi ko fayoon dix mille francs ba ñu eggee ci Touba Mbàkke waa ji daf ko doon bëgg a sàkku ku naka la ndaw si yuuxu askan wa daal di génn ci la waa ji daal di nangi faaw bàyyi fa oto ba